forage bi depuis 2018 be léegi ñu ngi yor problème euh, comité ñu ngi yor problème comité dañu fi teg comité bi nga xam ne comité bi population bi andu andu wu si waxaat nañu waxaat nañu waxaat nañu toujours problème mu ngi fu bëgg génni génn nañ fi jaay wax nañ bi commandant du benn du ñaar ñëw fi euh, maire ñëwul réglé ko sous-préfet ñëwul réglé ko dem nañ ba ministère de l'Intérieur sax ay li ñu wax ko mu ne kaar leen fi ak quelques quelques jours ñu moo rakkale ko ba léegi rek lu wuñ ko léegi nag OFOR su dee OFOR moo indi jafe-jafe bi moo jokkoo maire yi si gox bi pour ñoom ñu tànnal euh, lu leen nekk ñu teg fii ñu sànni OFOR teg fale ñu defal na fii comme comité bi nga xam ne population bi moo moo seet ku leen doy mu mu teg fii pour ñu am ndox bu doy mu am jàmm problème jóge fii. ñun sonn nañ bi nga sonn bi nga xam ne kenn kamul fan lay tol na Sénégal bi yëpp yëg nañ sunu sunu sunu sunu sunu sunu sonn léegi nag président waxul kenn waxul léegi nag dañu leen yónni si président de la république Macky Sall su dee lu jëlee si maire ba dem ministre de bu ñu leen waxee sunu problème du leen faj dañu leen yónni si président de la république ngeen wax ko ngeen xamal ne kilif déeg dee yor nañ problème ben xam ne boo ngeen atwul kuloo da ngeen atte fi keek keek bi nag ku ne mun na si génn waaw loolu daal comité bi bi ñuy keroog bi ñu toogee fii ñu toog ak ak adjoint maire ak sous ak chef hydraulique ñu def euh, seen bilan euh, présentation bilan bi sous wax nañ mm, programme bi jaarul yoon chef hydraulique wax nañ wax nañ loolu ñu léegi nañ dindi mm, béréb bi nekk fii ñu defaat beneen bira léegi nag bi ñu waxee noonu léegi kii teewal woon fi maire nangul ànd ak ñu si loolu léegi nag ñu ñu ngi ñu ngi jooyte loolu ñu defal leen fi comité comité bu normal bu ànd ak jàmm ak dal loolu lay doon sax waaw ñoom ñoo ñoo ñoom ñoom ñoom wax nañ fii un million cinq mille quatre cent kenn kamul fu mu dugg sous wax na ko chef hydraulique wax na ko ñoom waxaat nañ beneen beneen bila am na yeneen xaalis bu yëpp yëpp bu ngeen laajee hydraulique ak superficie ñoom bind nañ ko yaakaar nañ benn beneen bila xaalis yu ëpp lool ñu ñu ñu ñu ñu dem superficie boppam ak seen hydraulique boppam moo waxal seen bopp xaalis bi nangam ak nangam xamuñ fan lañ dugg léegi loolu il faut ñu def ko rapport ñu xam xaalis bi fan lañ dugg te kay di am nañ fii ay ay ay yeneen yeneen yeneen yeneen bor forage bi nga xam ne am na am na mu ngi fii te loolu yëpp yëg nañ ko ba léegi kenn kenn kenn waxu si dara bu toll na si million millions cent quelque mille mu ngi mu ngi fi nekk bor si si gox bi te ñàkk juboo bii rek moo moo waral loolu. lan ngeen bëgg tey ñu def ci Covid lan ngeen bëgg tey. ñun kay dañu bëgg nguur bi ñu ñu ñu ñu ñu ñëw fekk ñëw bi si si si si si bi lañ lañ lañ jëfandikoo. population mu ñu ñu ñu jàpp ko si si si ñu jàpp seen loog fekk kenn du si du si du si si dugg ay erreur ak yu mel noonu ba ba ba ñoom ñu réglé problème bi. sabu ñun ñun gisee programme bi suba sax wala ginnaaw soobu mun ngeen fi dégg leneen bu bokkul ak ak waaw. su fekkee ne maanaam daal xam naa ni buñ suñu jafe-jafe bi safriwul wax nañ ko benn wax nañ ko ñaar wax nañ ko ñett danañ danañ lu lu lu lu takk ñu ñu ñu faj ko. dañu ko def su dee keek dinañ keek su dee de lu lu takk daal jafe-jafe bi faj su dee nguur bi faj fajal lu suñu bopp ñun dinañ fajal suñu bopp waaw. fii fii kilif dégg de benn moom nekkul si comité bi benn si nit bu nga ne mu ngi bokk si village kilif dégg de bokkul si comité bi. te am na si ñoom sax bu jogee fii ñoom ak borom dëkk yi duñu nuyoo duñu duñ duñ duñ def dara waaw te ñun dëkk bi. xamul woon noonu sax lu lu lu passé bi sekk ak nit yu mel noonu. forage bi depuis 2010 man maa ko defoon demande ñii yëpp taxaw xam nañ ko man maa ko defoon demande ba 2015 le 8 mm, mm, janvier 2015 matériel bi mm, soog fi ñëw. ñu gas ko ba premier euh, avril 2017 ñu fonctionné. léegi waa OFOR ñëw ak waa hydraulique ñu mën léegi su dee comité pilotage si si wuñ ko def ñu denk moo ko mën am yow seet village am ñu seet beneen ñaar nit ñu boole ma ñu denk ñu denk ñu bi waaw. mais biñ ko denkee ay ay quelques jamono rek ñu dugal si ay politique coow jog nii la war a mel nii la war a mel coow boobu coow boobu coow boobu beneen sous-préfet mu jógee feneen ñu changé bi nekkoon fii ñu yóbbu ko Sédhiou ñu jël beneen Boy Nguel ñu indi ko fii motul quelques jours mu ñëw fii ak maire mu jël mu maire ñi jël nitam teg fii mais nit bi mu jël amul benn bi nga xam ne si bokk dëkk bi lay bokk beneen nit bu nekk si bi rek lay jël moom foofu lay kay ñëw fii forage bi. da nga bi politique dafoo leen ko. politique kam kam nga kam nga kam politique moom moom am na ci waaw politique moom am na ci. waaw bi bi bi bi bor bu njëkk bi bor bi ma wax ni man bor su dee bor yeneen comité bi am na bor kaw mu si mais beneen bor bi ma wax bi 4 millions yu bi boobu maire bi moo wa mu waxoon mm, ñoo waxoon bu leen fay na na ko ne fay mètre cube 200 fekk mètre cube 200 boobu mënul naanal nit yi léegi ñu wax ma léegi ñu def mètre cube 200 man lool il faut hydraulique ñëw ñu mën ne mu mu mu mu ne lool mën na nekk mu doo ànd si loolu mais en tant que hydraulique ma ñëwoon fi mu jokk prix te man kaw ma ndax ba mu defee mètre cube 200 danañ mun naan man duma ma si ànd si loolu te biñ biñ jotaate comité bi moom si si si si si mètre cube bi nekkoon fii mètre cube 250 moom lañ continuer léegi